asalaamaaleykum lii nag mu nekk fàttali bu am solo boo xam ne ñi nga xam ne maanaam ñoo ngi gis vidéo bi ñenn ñi loolu daan leen bett ndax yàlla dogal ñun defoon nañ ci vidéo depuis 2018 defaat nañ ci benn émission settantal bu am solo bu matale en 2020 loo xam ne ku dem ci chaîne boobu Nihama TV da nga ko ca fekk ndax xam nga li nit ñi di pratiquer ci koor mi waa ahlu sunna wal jamaa bokkul ak li yàlla jàngale ci koor bokkul yàlla soo demee ci alquran koor mu ngi ci wax ci diggante aaya 183 ba aaya 187 li aju ci koor yëpp yàlla ci diggante boobu la ko wax muy diggante bu gàtt boo xam ne information wala détail yi aju ci koor yëpp yàlla foofu la ko wax lu ngeen fa fekkul nit ñi ñoo ko ca dugal lu ngeen ca fekkul rek nit ñi ñoo ko ca dugal ba ci waxtu wi nga xam ne ci ngeen ndogu ba ci sax waxtu wi nga xamne si ngeen arrêté lek ni waxtu wi ngeen arrêté xëdd nga xamne dafa teel nak nga xamne ci guddi gi yéen naka ci ngeen arrêté xëdd ay 4 h du matin 5 h du matin ci ngeen arrêté xëdd alors que xëdd waxtu wi ñu koy arrêté mo gëna naaj tuuti xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan ne ee yéen ñi gëm yàlla dogal na ci yéen koor gi. kem ni mu ko dogalee woon ci ñi leen jiitu mu ne mën na am di ngeen bàyyi a mu ne yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min xablikum laallakum tattaquun mu nekk ci suratu baqara aya 183 ndax ko tàmbaleewul ci yonent bi comme ni nga xamee ne julli azaka ak aj lenn tàmbalewu ci ci yonent bi yonent bi fii la ko fekk wuuteeg nag la ñeen daan jàngal ci yenn mbir yi nag ndax islaam yenent bi indiwu ko fi dafa matee ci moom yenent yu jiitu yépp ci islaam lañu newoon te loolu mooy njàngaleem yàlla yàlla nag yeneentu bi bi mu ñëwee mu yeesalaat ci moom koor gi indi ci ay disposition yoo xam ne lu muy soppi yenn yi lu muy soppi la ca la nga xam ne mooy la jiitu la amoon léegi bi waxee ci aaya 183 ba pare mu teg ci aaya 184 bi ne ay yaaman maadudaatin فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون xam nga koor dafa am évolution ci ñi gëm ci bi fi yonent bi nekkee disposition bu njëkk bi bii la woon muy aaya 184 yàlla mu ne ay bis yu ñu lim la nga xam ne weer ak lu mu mën a doon ay bis yu ñu lim la مني فمن كان منكم kaana او على سفر فعده من ايام اخرى كو ayamin تي يين دا فا فيبر ولا مو نيك تي توكي نا ليم يينيني بيس nga xamna ki febar ak ki nek ci tukki ñom rek ñoy fay ko ku dul ñom du fay ko yeneen ya ñuy wax yépp nit ñe ko ci duggal te ku dem ci émission bañ ca defon dang ko ca fekk inshallah yi nga xam dañ ko ci wax yépp dañ nga ko ca fekk ki febar ak ki nek ci tukki ñoom ñooy fay maa maanaam ku gis baax kooku feebarut loolu du feebar ku dem ci émission boobu da ko ca fekk mu am beneen benn wax bu ci topp boo xam ne seen téere yi lañ ci jàngale ak même soo demee ba ci tradition française yi lañ ca wax bokkut ak li yàlla wax parce que li nekk ci seen téere yi moom lañ traduire ci aaya boobu mooy li yàlla wax ne wa ala na yutiixuunahu ñoom nag suñuy wax dafa mel ni dañuy wax wa ala allazina laa yutiixuunahu yàlla dafa wax ne na wa ala alladina yutiqunahu fidyatun taamu miskin gaa yi nga xam ne attan nañ ko nañuy jotu ci leyal ab miskin nañuy jotu jotu mooy racheté wu mooy ñi nga xam dañ ko attan te defuñ ko <laughs> loolu la yàlla di jàngale mooy disposition bu njëkk bi ñi nga xam dañ ko attan defuñ ko nañuy jotu mooy nañu racheté wu ci leyal miskin ama disposition bu njëkk bi loolu la woon nit mën na ko attan du ko def su boobaa lan lay def day jël dara jox ko ab miskin loolu la yàlla jàngale yéen nag li leen daan jàngal mooy ki ko mënul moom day joxe li ñuy wax mudd xaw ma te loolu saxul yàlla ku ko mënul tegu la dara ndax li mu jàngale mooy laa yukallifu llaahu nafsan illa wusaha yàlla tegul benn bakkan lu mu àttan kon ku mënul yàlla sant la nga def dara loolu njàngaleem nit ñi la du njàngaleem yàlla yàlla waxul ku ko àttanul yàlla ku ko àttan la wax wa ala lazina yutiquunahu waxul wa ala lazina laa yutiixuunahu yàlla jàngalewul loolu yàlla mu ne nag fa man tatawwaha xayran fa huwa xayrun lahu wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamun mu ne ku coobarewu yiiw moo gën te loolu moo gën ci moom te mu ne su ngeen wooroon moo gën ci yéen su fekkoon na xam ngeen loolu mooy disposition bu njëkk bi mu ñëw nag ba tey ci disposition bi ci topp nag bi nga xam ne moom mooy moom mooy dox ba léegi nii mu ne chahru ramadan allazi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان faman shahida minkum الشهر فليصمه nga xamne bi mom limu waxe nan faman tatawa khairan ak waxal lazina yutiqunahu ci bi ñëwul su fekke ne yow ku gëm nga wëru ko xamal ne yow mi gëm yàlla dala wax na soko fekke na nga wor te loolu sa inshallah dana ñëw ci benen vidéo lu jëm ci ay walu sentu wër ak nangam nangam ak xeet yooyu ni yàlla jangale bopam inshallah dana ci ñëw weeru koor gi di weeru ramadaan ci la alxuraan wàcc nekk ak ginde ngir nit ñi nekk tamit ay leeral ci ginde gi di ràññee gi mu teg ci lan fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu ku seede ci yéen mooy ku fekkee ci yéen weer bi na ko woor mooy ñi nga xam ne dañoo gëm ku ci fekkee weer bi rek yow danga ngaa war a woor mooy nag wa man maridan aw ala safarin fa min ayamin uxar ko xamne nak dafa febar wala mu nek ci tukki mu ne koku mom na lim yeneeni i bis ñaar ñooñu rek ñoom ñoy fay te yàlla mu ne lam ca nam moy jàppandil moy lim nam ci ñun li wax yuridullahu bikum yusra wala yuridu min tudu waaye wala yuridu bikum usra way tukki mi lulu hiddata wala tukabbirullaha ala ma hadakum wa laallakum tashkurun ndax lu tax mu ne manam ñi febar ak ñi nek ci tukki nañu lim yeneeni bis ndax mu ne limu nam ci yéen moy lu jàppandi waaye namul ci yéen lu jafe mu nekk loo xam ne lu leer la nag la wax naan ku dog benn bis ci weeru koor dangay fay ñaari weer loolu wérut su dee gëm nga yàlla yàlla dalaa wax ne weer bi su la ci fekkee wooral kon yow sa gëm yàlla ngay teg ci table bi soo gëmee da ngay woor soo gëmul doo woor defoo ko kenn yàlla fayloowu la yow mi nga xam ne dara jotu la nga mën a woor te wooro ay ñaari weer da fay ñaari weer yu toftaloo wérut loolu wérut dafa am ay àtte yoo xam ne bii day wax ci ku rey nit ci njuumte moom ca la muy jotoo da cee bokk woowar ñaari weer yu toftaloo loolu foofu la ñëw ci alquran ak koo xam ne dafa giñ ci fase atte yooyu foofu rek la ñëw ci alquran amul feneen li di wax wérut su ngeen demee nag ci aaya 187 bi yàlla ci lay wax li nga xam ne moom la dogan li nga xam ne moom la daganal ci ñun ci guddi koor gi nga xam ne koor maam la nga xam ne moom mooy yàq nit ki kooram ak lay tax kooram baax yàlla la mu daganal ca yow ca guddi ga loolu mooy lim la tere ci bëccëg bi loolu nag mu nekk ci aaya 187 nga xam ne waxtu wi nga xam ne ci ngeen ne arrêté lekk foofu la ko yàlla wax mooy su demee ba fajar gi xar wuuteeg li ngeen di def ñu naan leen waxtu xëdd da nga war a xëdd ba pare toog lu mat 15 minutes doo ko julli fajar wérut te gis naa seen ustaas yi léegi sax yuy ñëw di confirmer loolu di wax ne wérut. may fàttali ñu ci koor gi moo xaat ko. Euh, am na ñuy wax ay minutes yuy dox diggante bàyyi xadd ak julli suba diggante bàyyi xadd ak julli suba benn seconde doxu diggante bàyyi xadd ak julli suba benn seconde dox fi wax jooju njuumte la boo xam ne xëy na ñi ñi ci continuer dañoo dañ cee ñëg waaye wérut bàyyi xadd xaaral fajar mooy taxa arrêté xadd القران لا دو اواساني اك سنه يونتي بي صلى الله عليه وسلم القران ما كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لك لين نان لين با فجر خر بو فجر خري لا ني جولي صبا كون ديغنت باي خد اك جولي صبا بن سكوند دوخو ndogu tamit yalla lim ci wax moy goudi mu nek lu leer te yalla mo différent mo différentiel bopam timis ak guddi mooy li ñuy wax crépuscule ak guddi fala uqsimu bi shafaqi wal layli wama wasakha wasaxa nga xam ne yàlla ci boppam moo différentiel boppam crépuscule ak guddi te li wax ci waxtu bi nga xam ne ci ngeen wara a maanaam ci ngeen war a arrêté dane wakulu washrabu xatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswad minal fajri mooy tax na ngeen lekk te naan ba ba muy leer ci yéen alxaytul abyad muy wëñ gu weex gi ci wëñ gu ñuul gi ci fajar gi nga xam ne ba muy leer ci yéen am ñu koy wax ne da ngay soo téye wëñ gu weex ak wëñ gu ñuul ba mën koo ràññee rek ci foo xam ne dafa lëndëm waxtu woowu ci nga war a maa arrêté lekk waaye li ñu wax rek mooy ba fajar gi xar ama soo xoolee ci horizon bi da ngay gis ne day mel day tàqalikoo waaw loolu mooy waxtu yi nga xam ne moom la yàlla jàngale mu nekk lu leer lu kenn ku ci ne mën a vérifier ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum